baraxlu xam naa njobe ni moom fi ne bis bu ne dañ ko ñi waaw ñu ngi dugg ci weeru baax baraxlu wala fi ne day barax baraxi kon insha allahu yàgg dara ñu dugg ci weeru koor yàlla nañ ci egg ak jàmm te buñ ci eggee yàlla nañ mën a woor te bu ñu wooree yàlla na ko yàlla nangu kon ci guddi àjjuma jooju lañ ñëw dajawaat fii ci jataayu fàttalante bi ñu tàmm am di ko amee fii ci du Nuur ci téere nitu yàlla ku màgg kii ñuy tuddee docteur Saïd Hawa téereem bi mu tuddee jundullahi thaqafatan wa axlaqan eh, te mooy nitu yàlla ki nitu yàlla ki baatu nitu yàlla gi laa mujj tànn ci baatu góor yàlla ndax nitu yàlla ci la góor bokk ci la jigéen bokk te góor dong du góor dong mën a nekk waaye yàlla histoire wane na ba tàyyi ay jigéen yu jege seen borom yu liggéey lu réeré ci diini ji kon nitu yàlla ki lan la war a xam waaye nitu yàlla ki ni mu war a mel jamono yi yëpp ñu ngi woon ci nitu yàlla ki ni mu war a mel ñu tënkoon ci juróomi jikko yoo xam ne ci alxuraan lañ ko tibbee yooyu wane ku bëgg a bokk ci nitu yàlla yi nan ngay mel jikko bi ci njëkk mooy nangu péete féete ak yàlla ak yonent bi ak jullit ñi bi ci topp mooy fexe ba bëgg yàlla yàlla bëgg la bi ci topp mooy nooy ci jullit yi bi ci topp mooy sévère ci ñi dul jullit bi ci mujj mooy nga jihaad fi sabilillah juróomeel jikko boobu lañ tàmbali ay semaine a ngi nii eh, te muy tomb am solo mooy nangoo jihaad fi sabilillah jihaad nag dafa wari façon wax nañ ci déjà ñaar bu njëkk bi mooy jihaad ci làmmiñ ba ba dugg ci jihaad ci jàngale ñu wane woon na jàngale nit mën na cee jihaad kiy jàngale nag ki bëgg jihaad ci jàngale nag foog bala ngay jàngale dangay jàng ndax li nga xam nga war a jàngale loo xamul mun loo ko jàngale ku bëgg a jàngale diine ji nag foog nga am aslëf ci alxuraan xam as lëf ci sunna waaye jàng xam-xam yi tax a dégg arab ndax alquran ak sunna li ci ëpp ci ci arab lañ ko bind kon fexe ba fànn yi tax a dégg làkk bi lu mel ni naxu ak sarf ak ñoom ñoom ak ñoom bayaan ak ñoo ñëpp nga jàng ko soo ca jógee nga nga nga jaar ci déggiinu ñi la njëkk a dégg diini ji seen déggiinu diine muy fiq waaye nga jàngaale nu ñuy déggee diine cest à nga jàngaale nu ñuy génnee atte yàlla yi ci texte yi ndax mën nga am texte bi te doo xam ban atte lan la yàlla bëgg koo def wala lu mu bëgg koo bañ loolu beneen technique la boo xam ne usulul fiq moo koy jàngale muy technici technicité boo xam ne daanaka ci diine dong la am muy muy fànn gu doy waar gu yéeme goo xam ne dalay jàngal dan ngay ballaloo atte diine yi ci texte yi tàmbalee ko ci alxuraan ak sunna soo ci jógee nga jàng jaar-jaaru jullit yi ndax lu bari ci dégg diine jaar xam fi diine fi jullit yi jaaroon mooy tax nga mën koo dégg jàng jaar-jaaru diine yi tàmbalee ko ci yonent yàlla muhammad saxaaba yi ak ñi ñëw seen gannaaw ñëpp boo paree nga xam ne danga wara a yittewoo mbiru jullit ñëpp fu jullit nekk ci àdduna bi sa mbokk la la muy dund da ko war a yittewoo te da ngaa war a def pexe ba bu amee ay jafe-jafe nga génne ko ci jafe-jafe yooyu loolu nag mun loo ko defal koo xamul ay mbiram loolu li muy tekk mooy foog nga yittewoo jullit ñi ak ni ñuy dundee ci kaw suuf loolu tam pour nga jàngale diine ji foog nga xam complot yi nga xam ni ñi dul jullit ñi ngi koy def contre jullit ñi su ko defee boo ci jógee nag euh, nga xool àdduna bi ni mu tëddee te mooy nga def li ñuy def fiquwul waaqee mooy fi nga nekk nga nga nga xam ko parce que boo xamul fi nga nekk doo mën a régler seeni problème mën ngaa xam lépp luy texte waaye boo xamul fi àdduna toll ak fi sa jamono toll doo mën a régler problème mu jamono jooju loolu jumloo na ay borom xam-xam yu bëree bëri yoo xam ne ñu mo mokkal lañ mokkal alquran mokkal lu bëri ci sunna jàng lu bëree bëri mais munuñoo regle benn problème lu tax parce que dégguñu seet jamono loolu moo tax docteur Youssouf al-Qaradawi radiyallahu taala anhu yàlla na ko yàlla dolli yërmande dafa masa tontu benn kilifa gu mag gu nekk fële ci Arabie Saoudite gu ubbee woon keroog bi saadaat demee Quds juboo ji ak Israël te monde islam yi yëpp ŋàññ ko rawatina ñi jàng diini ji dafa am kilifa gu mag gu ne saadaat am na ci eh, fa in li salmi faj na laha eh, looy aay boobu day wane ne saadaat mën naa dem eh, Quds docteur Youssouf Qaradawi tontu ko mu ne ko man sikku ma ne jàng nga xam nga diini ji mais li xew nga xamul parce que soo jàppee ne Israël yéene ba mu amoon depuis démb te mooy delluwaat Medina gim jàpp na yéen tibbee ko fa génne soo defee ne projet boobu da cee soppi lu toll luy ñuul ci we c'est parce que xamuloo li xew kon nag yow sa njuumte bi ajuwul ci texte yi ñàkk xam li xew moo moo la ko loolu misaal rek lay tekki yi ne mënuloo régler problème mu jamono te xamuloo jamono kon xeetu xam-xam yépp nag ci ñett mbir rek la lay yóbbu xeetu xam-xam yi ma fi tudd yépp mooy nga xam yàlla xam yonent bi xam lislaam kese lépp loo jàng ci diini ji te yóbbuwul la ci benn ci ñett yi jàng bi amul njëriñ donc ñun fii li fii régler suñ problème mooy ñu xam ñett ñooñu xam yàlla dëgg-dëgg yi kan mooy yàlla xam yonent bi xam al islaam loolu moo tax moom mu bind ñetti téere yu mag yu ama am sol benn bi mu tudde ko allah benn bi mu tudde ko ar benn bi mu tudde ko al islaam loolu moom rek laa gis bu def ko ci borom xam-xam kon ñu ngi ci euh, jihaad ci jàngale muy lu am solo jàng nag jàng ñu bari ci jullit yi joxuñ ko yitte jiñ ko waroon jox ñu bari ci jullit yi joxuñ jàng yitte jiñ ko waroon jox liñ jàpp mooy mën nañoo mat ay jullit te duñ jàng loolu nag ay am nay njuumte xëy na jàng ba nekk kàng fóore santuñ ko ñëpp ñëpp nuñ ko te santuñ ko ñëpp itam waaye am na ay ay ay dénominateur commun am na yoo xam ne mënut a ñàkk foog kenn ku ne rek la ko wax naa ko sama jàkk sama jàkk ñu bari dañ fay jiite léegi am na ñu fay jiite ñoo xam ne Euh, am nañ problème bon mais man pour man principe bi ma déparé mooy ku mën a julli rek war nga mën a jiiti ku mën a julli rek war nga mën a julli ndax ki mën a julli mooy ko xam ne koo xam ne bu jullee bu yàqoo moon ko defar du julliwaat ñu bari rek dañuy julliwaat loolu kenn du ko def julli dañ koy defar képp ku mën a defar julli mën ngaa jiiti léegi nag loolu la problème yu Sénégal yu bëri rek la wu Sénégal yu bëri mënuñoo defar julli dañuy tàmbaliwaat rek tàmbaliwaat te defar julli wax dëgg yàlla jafewul euh, maa ngi recensé naa ñaata masala lu xaw a mat ñeent fukki masala ci baabu baabu sax bi bi nekk ci laxtar yi xëy na dinaa ko génne pour que ñu ku ko bëgg ngay pa lu war a mat euh, li ko manqué juróom fukki masala bariwul yoo xam ne moom ku ko réglé réglé nga julli ndax ni laxdar yu jàngalee julli man gisuma beneen téere bu ko jàngale noonu kon loolu weer weer ëpp na ci weer weer ëpp na ci weer ci ku ko bëgg a la weer ëpp na ci te sénégalais yi surtout sénégale yi lu nekk réglé na lu jafe lu ne réglé nañ ko lu ñu réglé wu rek dañ ko bëgg te réglé léegi nag lu tax bëgguñ ko réglé loolu mooy mooy problème bi parce que nag wax dëgg yàlla fexe ba mën a julli moom moom farata te du la yàqal dara nag du tee nga nekk loo bëgg a nekk boo ba nekkee président wala ministre wala député boo mën a julli du la ko yàqal jàng rek jël sa taa tuuti ba mën a julli du yàq benn benn benn euh, euh, yéene boo am ci nekk dara mu ne wa hunaaka naasun laa yaq laa yuqaddiruuna al ilma bil islaami xaqa qadrihi wa yarawnahu axira al umuuri wa haulaa juhaalun wa xumqaa wala xamqaa fa biduni al ilmi laa yaqumul islaam nee na am na nit yu bari ñoo xam ne joxuñu xam-xam yitte jiñ ko waroon jox jàpp nañ ne daal man moom mënees na koo paase mu ne loolu njuumte la ndax lislaam munta am ci lu dul xam yonent bi nee na fadlul ilmi fadlul ilmi xayrun min fadlil yonent bi nee na jàng moo gën jëfe moo gën jaamu yàlla jàng moo gën jaamu yàlla yonent bi mooy wax de waxuma fatlul ilmi xayrun min fatlil ibadati wa xayru diinikum alwara mu ne diine ji nag wala jikko ji ci jikko yi nag mooy sàmm mooy sàmm mooy xam ne lii dagat na ci waaye da tuutal nga bàyyi ko lii daga na ci waaye boo ko defee mën naa tax nga juumloo keneen keneen nga bàyyi ko loolu mooy wara yonent bi wax ne xadis boobu eh, tabaraan yi moo bind ci awsaat bazaar itam bind na ko ne xadis bi wér la yonent bi ne fadlul ka fadli waaw ka fadli wa malaikatahu wa ahlu samaai wa ahlu samawati wal ard xatta namla fi juxriha walxiitaanu fi lbaxri yusalluuna ala muallimi nnaasi alxayra est-ce que yonent bi nee na boroom xam-xam ni mu gënee ki amul xam-xam mooy me mooy man ni ma gënee ki gën a doyadi ci jullit yi yonent bi mooy wax yonent bi ne man ni ma ëppee daraja ki gën a doyadi ci jullit yi noonu la boroom xam-xam ëppee daraja kii jaamu yàlla te xamul kii jaamu yàlla te xamul alaabi nee na yàlla ak i malaakaam ak asamaan yi ak suuf yi ba ci xorondoom bi nekk ci biir këram ak jën yi nekk ci géej dañuy julli ci kiy jàngal nit ñi lislaam dañuy julli ci kiy jàngal nit ñi lislaam ah, ala muallimi naasa alxayra xayra mooy lu baax lislaam la du charia donc jàngale charia baax na waaye jàngale médecine baax na jàngale mathématique baax na lépp loo xam ne soo ko jàngalee jullit yi dana tax ñu man seen bopp ba mën a tal seen boroom loola jàngale ko ci xayri la bokk kon boroom xam-xam bi ñuy wax fii du boroom xam-xam charia donc képp ku xam luy jëriñ nit ñi ci seen dund adduna wala alaxira nga xamal leen ko loola yaa ngi dugg ci jàngale xayr yonent bi nee na faqihun waxidun ashaddu ala shaytaani min alfi abidin yonent bi nee na benn borom xam-xam bu xam sharia moo gën a jaaxal shaytaan yi junniy jullit yuy julli te xamuñ yàlla yonent moo ko waaw loolu tam xadis la bu wér boo xam ne eh, imaam Tirmidi moo ko bind eh, imaam Tirmidi bind na hadis boo xam ne yonent bi moo euh, imaam euh, Anas ibnu Malik moo ko déggee ci yonent bi mu ne kaana axawaani ala ahdi rasulillah wala boog Anas moo wax wax ji ahaduhuma yaxtarif wal axar yulzim rasulallahi yalzim rasulallahi wa yataallam minhu fa shaka almuxtarif axaahu ila rasulillah fa qaal laallaka bihi turzaq waaw ñaar ñaari doomu ndey wala ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi kenn ki jàng métier ba am ko di liggéey kenn ki toog ci yont bi di jàng diini ji ki am métier ñëw ci yont bi di jàmbat frère bi nangu la liggéey foo ko fekk mi ngi toog ci kanam yont bi muy mu mu bëgg yont bi dàq ko mu liggéey yont bi ne ko ce que du waajee tax yow boo boo liggéey am dara <laughs> dara wóoru ci est-ce que du barke waa ji jàng ci man nekk ci man moo tax yow liggéey liggéey nga am ci dara ndax nga mën ko yóbbaale yont bi jubluwu ci ñaax ñëpp ñu nekk ci moom li mu ci bëgg a wax rek mooy nit ki na tànn ci li muy def te na ko def ngir yàlla donc jël benn temps jàng ko bàyyi li nga doon def yëpp jàng ko ngir boo ca jógee jàngale ko loolu kenn ayewu ko yont bi nee na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariq tariqan ila jannati képp ku sol sa dàll di wuti xam-xam yoon wa nga jaar boo ko wàccul àjjana ngay ngay teeri àjjana ngay teeri kon jàng <coughs> lu ama am solo la léegi nag jafe-jafe bi fi mu nekk mooy xam-xam yi daf ci am xam-xam yoo xam ne arrangé wul borom doole yi surtout njiit yi léegi nag est-ce que da ngay noppi bañ ko wax waaw est-ce que léegi li nga xam te arrangé wul borom doole yi arrangé wul surtout borom nguur yi léegi ndax da ngay noppi alquran ne déedéet inna alladina yaktumuuna ma anzalalna ma anzalna min albayinati walhuda min baadi ma bayyannaahu linnaasi fa inna eh, fi lkitaabi ulaika yalanuhum allahu wa yalanuhum allaainun inna alladina yaktumuuna yaktumuuna ma anzalna min albayinat nee na ñiy nëbbu li ma wàcce ci alquran wa hudaan ak njub wal huda ak njub gannaaw bi ma ko leeralee nañ ñi ba nit mën koo xam koo ko jàngal mu xam ko te loolu ma def ko ci téere bi ñi noonu yàlla rëbb na leen waaw ñépp rëbb na leen kon yàlla yàlla musal ci rëbbam yàlla kon képp ku xam dëgg di ko nëbbu yàlla rëbb na la mu waxaat loolu mu ngi nekk surat baqara aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent léegi mu waxaat ba tey ci saar bi inna alladina yaktumuuna ma anzala allahu min alkitaabi ñiy nëbbu li yàlla indi ci alquran wa yashtaruuna bihi thamanan qalila te li tax ñu def loolu mooy ñàkk ko indi day tax ñu mos ñu sedd leen ulaayika ñooñu ñuy sedd ay poste de responsabilité ay indemnité ay bon essence waaw ay billets yu ulaayika maa yaakuluna fi butunihim illa naar ñooñu dërëm bu ci dugg seen biir dërëmu safara la yàlla ni ci àll musal wala yukallimuhum allahu yowma alqiyamati looloo gën a garaaw bu yowma alqiyama yàlla di leen di si ba du wax ak ñoom buñ ba jógee bu ko wax ak moom mu ne leen mu dumóoyu leen ndax soof ko wala yuzakkihim du leen layal du leen layal walahum adabun alim mbugal mu tar moo leen di xaar yàlla nañ ci yàlla musal ulaayika alladina ishtaraw dalalata bil huda ñooñu dañoo jëndee njub ndëngte dañoo jëndee alaxira adduna wala adaba bil maxfira ñu jëndee njëggal mbugal fa ma asbarahum ala naari ak ak ak ñoo mën a muñ safara parce que buñ muntoon a muñ safara duñ def dégâts bu ñu def kon ñee mën a muñ safara ñee ñee mën a muñ safara waaw yàlla nañ ci yàlla musal ñun duñ ci xool ñun safara moom dañ ci dégg doy yoon bi nee na ci hadis boo xam ne Tirmisi moo ko bind Abu Daawuda bind ko man suila ilman yaalamuhu fa katamahu al uljima bi lijaamin min annaar képp ku laaj ab loo xam nga bañ koo tontu ngir ragal lor walla ngir bëgg tranga yàlla laab na la laabi safara kon inna alayna waajiba tibyaani al islaami tibyaan al islaami kullihi li kulli muslim liñ jàng mu néew mu bari xamal ku ñu jàngut loolu warugar la ci ñun du tee nag ni nga koy jàngale nga seet ko parce que du koo jox dëgg mu jël ko am na waxiinu dëgg woo xam ne koo ko jox du ko jël kon dangay jàng ba pare jàng nu ñuy jàngale misaal mi ci rahmatullahi alayhi alaaji Musaa Gey daan joxe mooy xale bi nekk ci pénc mi di fondoo ak moroomi xaleem baayam génn xale yi ñi ko bëgg a tooñ dañ ko naan sa jëkkër yaay nga ne kooku day xeexa yow mais boo ko nee sa baay nga ne day kontaan pourtant baayam mooy jëkkër yaayam kon li tax mu xeexa yow waxin la waxin waxin dana yàq wax waxin dana yàq wax jamono ju jàngalekat yu bëree bëree waxi na tax seen jàngale kenn du duñ ko jël jëriñoo am na ñoo xam ne boo leen ko nit ñi boo leen ko joxee li ngay jàng duñ ko jël te su boobaa yow yow yaay responsable moo tax toog fii rek di xas nit ñi ndax nangu ñoo dégg diini ji te yow xooluloo ba xam ñàkk nangu dégg diini ji ci ñoom loola ci yow la loolu tam wóorut wóorut parce que ah, wóorul ah parce que nit ñëpp de nature dañoo bëgg dëkk koo jox dëgg ni ko ko war a joxe mu jël ko amul werante waaw ah, ah, koo jox dëgg ni dëgg gu nekk nag ak dañ ko joxe waaw ah, su ko defee dana ko jël waaye nag di ko ci joxaale di ko ci xasaale ak di ko wan ne ko yow tee ci boo ko waxee mu ne maa la ci teg parce que bu boobaa nag léegi li fi ses mooy eh, yàlla nag moom mooy régler problème yooyu yow li ñu la sant mooy nga wax li ñu la li nga jàng léegi mu ñëw xool bu ñu bëggee jihaad jàngale yan jumtukaay lañu am jumtukaay yooyu bokk na ci mooy ay bind yu ñu amal ci jàkke yi ci quartier yi ay séminaire yu ñu organisé donc fathu dirasat taalimiya muddat ad-dawra tuqaddar tabaan li ahwaali al-mushrik boo yi ay séminaire yoo xam ne da nga ciy dajale ay nit ñu seet li gën a jàmp ci li ñu war a xam ñu jàngaleen ko ci semaine ñaari semaine ñaari fan ba cinq ba quarante jours quarante jours nag moom nombre bu ama am solo la ku ci mënoon di def loolu dina am solo lool euh, moo tax Amar. dafa am benn waay bu mu gëj gis waa ji ñëw mu ne ko ay na kunta foo nekkoon waa ji ne ko kuntu fir ribaat damaa demoon séminaire Omar ne ko kam rabit rabatta ñaata fan nga def ci séminaire bi mu ne ko thalaasin fanweeri fan mu ne ko lu teewoon nga def ko ñeent fukki fan donc ñeent fukki fan xam nga yonent yàlla Moussa ba mu demee ci séminaire am ba ñeent fukki fan la fa dem ñeent fukki fan dafa am solo lool daanaka lépp lu la loolu la jaaxal soo mënee wéet diiru ñeent fukki fan am na jumtukaay yoo xam ne boo ko jëfandikoo loola moom dana dana am solution incha allah kon euh, di tënku léeg-léeg ci ay parce que jàng ci mbooloo dafa gën a foor jàng yow dong euh, léegi masala mi ba ba ñun bi ñu nekkee ay ay étudiants fële Algérie surtout ñun sénégalais li taxoon ñu daan am not yu baax yi ñu am mooy groupe lañ doon jàng parce que boo dee jàng groupe sa njuumte yi dañu la koy signaler boo dee jàng yow donc loo même boo mokkalee sa leçon yëpp mën naa am da nga yàq nga ko te ko mën naa dégg dafa nga di dégg fekk dégguloo ko su ko defee loola nag nga jàpp ba examen yow nga dem sotti ko ci kayit gi ñu ñu noté la bu baaxul par contre boo toogee say nawle wax ko ñu la ñu ñeme laa weddi parfois sax dañ lay bëgg a weddi pour tuutal la. <laughs> léegi soo ko yàggee def bu yàggee lu wér a wér ngay am lu wér a wér ngay am loo xam ne loo ci def ci këyit rek ñu nangul la ko waaw léeg sax nga def loo xam ne day dépassé ki lay jàngal bari looy liir ak bari looy warante ci li nga jàng mën na jur nga am niveau boo xam ne boo wattuwul eh, ki ngay jàngal mën na mas naa am benn professeur ci ci Irak dafa am benn téere bu bu ñu wax téere boo xam ne monsieur Laflaq moo ko bind la Laflaq mooy sëriñu Saddam Hussein moom moo théorisé la bassisme téere bu garaaw la bind ñu koy ñu tuddee ko tarbiyel watani nii nga xam ne foo mën a jàngee ci Irak da nga ko jàng même bu dee université fakk fakk boo mën a def da nga ko jàng te boo ci at mu doo jàll waaw da ko jàng te boo ci man li ma ci daan problème bi ma ci daan am mooy dama ci daan dugal sama yëfu bopp su ko dee su ma ñëwee prof bi ko du seet ndax li ma wax dëgg la am de da koy souligné bu ma ñëwee mu ne min ay na jibta hada <laughs> foo jëlee lii nga ngay nekk fi naan dama koo gis ak fële mu ne la baale yow di gisee yoon bindal li ma la wax moom da ngay mokkal lim la jox nga bind ko soxlawul sa xalaat moo tax boo fa jàngee ba génn doo xam tus boo deful attention doo xam tus parce que liñ la joxoon a ngay ngay jàng loolu day tënk xam-xam loolu moo wutale Irak ak Algérie Algérie euh, enseignement était libre li li li ko libéraliser nag mooy algérien dañu duggoon ci état bu arabisé biñ jógee ci France léegi nag amuñu ay algériens yu jàng ñu dem jël Égypte ñu jël ñi tax mën a jàng Égypte ci asar recruter leen fay leen ay double salaire ñu ñëw nag ñooñu nag ñëw di wone seen bopp donc dañu bëgg idée bi day nekk bu libre moo tax ku fa ñi fa jànge dañu am esprit critique loolu lu am solo ibnu abbas nee na xaddis nnaasa marratan fi ljumaati lu mu néew néew jàngaleel benn yoon ci ajjuma ajjuma comme ñun ñi guddi ajjuma lu mu néew néew guddi ajjuma gu nekk ñu jàng fa ida abayta fa marratayn bu la neexee boo mën boo ko mënoon sax ñaari yoon nga koy def ci semaine bi waaye bu baree ci yow bu boo bëggee mu ëpp lool defal ñetti yoon kon lu mu neew néew na nga jàngale yow muy jàng yow jàngkat bi na nga jàngale benn yoon ci semaine bi wala nga jàngale ñaari yoon wala sax boo mënee nga def ñett waaw waaye nag bul tax nit ñi euh, tayal saa bu leen teg lu lu ëpp loo xam ne duutuñ sawar ci jàng mi nañu mos rek nañu mos di dem si ñëw su ko defee loolu mooy tax ñu sawar ci ci jàng si waaye bu fekkee foo toll di jàngale itam nit ñi amuñ jot kooku parce que nit ñi di jàng doo nga leen war aussi waaw dafa am yeneen yu la war surtout bu ñu demee ba nekk ay mag da ngay naxanteeg ñoom rek nag da nangu ñu mosal la ci liñ sal ci waxtu loolu da nga ciy góorgóorlu nga jëriñoo ko donc euh, kon jàng téere yi jàngandoo ak say moroom loolu mën naa dimbale jàngalekat. Euh, ubbi comme ni mu ko waxee xalaqaat maftuha fil masajid ubbi ay dars si jàkk yi programme ay dar si jàkk yi bu kii ñëwee tey bu subaa keneen ñëw kii jàngale ci fiq kii jàngale ci siira kii jàngale noonu baax na su ko dee nit ñi dañuy mën leçon yu wuute yi mën na tax ñu ñu sawar di ci ñëw yëpp euh, kon il faut ñu utiliser jàkk yi Euh, loolu nag ñun dañ koo sàggane ñun suñ jàkk yi duñ ci jàngale dañ ci mën nañ ci def sikr waaye duñ ci jàngale bu jàkka yi doon jàngale rek léegi sénégalais yi xam diine ji parce que jàkka yi rek ñoo am possibilité jàngale diine ji ndax euh, yaakamtiwuñ dara dangay ngay programmer rek euh, ndar ndar bari na luñ xam loo xam ne jàkk yee tax ñu xam ko euh, rôle bi jàkk yi doon joué ci ndar jur na lu bëree bari ci ci ni mentalité sénégalais yi surtout ci wàll administration wax naa ko mës naa ko wax fii ci point e, te loolu laa gëm point 1 e dafa bëri administrateurs yi ñu bëri foofu lañ dëkk ñu yoroon administration sénégalaise ñi nga xam ne ñoo tabax état bi état sénégalais bi nga xam ne moom la ñuy tiitroo ñi ko ñi ko taxawal dëgg du Senghor ay Saint-Louisien lañ mooy ñu doon jànge ci bool keng midi keng waaw bi ma koy doo xaw ma lu mu tekki benn ndar ndar laa ko laaj mu ne ma ñoom ci ndar ku mat a dal alxuraan day dal alxuraan ba ba muy mat a dal école waaye duñ jël nit ki mu jàng alxuraan kese kese wala école bi léegi day jàng alxuraan ba dal français jot mu dem dal su dalee du ko tax bàyyi ma alxuraan ji day jël li muy dese ci bis bi jàng ci alxuraan ba ba école di jàng léegi nag loolu day tax te ñoom jour duñu tànn àllarba rek de bis yëpp lañuy dellu ci daara ji suñ jàngee suñ xëyee dañuy dem suñ xëyee léeg-léeg sax am na ci ñuy dem jàngi alxuraan fajar ci jàkk wala ci daara yi ba ba mu des 30 minutes ñu ñëw ci kër gi ndékki dem école nekk fa ba yi ñu ñëw ci kër gi te dañoo war a delluwaat daara yi bala ñoo gontaat école loolu nag li leen koy may mooy bu mi di ne keng bool bi ne keng boolu añ bi su ko defee ñu añ dem daara ja ba 14 heures 30 ñu ñibbi ñëw ci kër gi jël seen bagage dem dem 15 heures daal ñooñu ñooy ñoo ñooy yi génn yoroon Sénégal ku mel ni Amadou Makhtar Mbaw Mbaw bi parce que booba diggante Louga ak Ndar benn groupe bi la même euh, même même civilisation la ñi ñi dëkkoon Louga dëkk Ndar benn ñooñu ñooy cadre yooyu nga xam ne Amadou Mahtar Mbow bi ñu koy defaral fii ci ci université Dakar euh, naa non école normale supérieure euh, ah centenaire bi du euh, lu jiitu na centenaire bi sax am na lu ñu ko jëkk a defal lu jiitu centenaire bi ci laa xamee ne ci la waxee ne bi muy dugg école la am na juróom-ñetti at ndax alxuraan la njëkk dugg donc Diop la maire Diop la maire nga xam ne lu nekk la administrateur la militaire la civil la lu nekk la Diop le maire tam bi ma déggee mu wax mbiru garabam daf ne dafa yéex a dugg eh, école ndax bi dafa jàngi woon alxuraan fukki at ma bu finalement <coughs> cadre yi ma gis Sénégal yëpp ñu tekki fi daara lañ njëkki loolu nag oh, nekk neexul neexul la wax boo ko waxee xale yi ñi dund après soixante dañ lay mere parce que après soixante la am bandi yi ñu yor nii <laughs> na ma bandi yi baal que avant 60 lu li may wax nii lu ma ñor lan parce que dafa avant 60 ma malheureusement ñun ñun li ñu indi li ñu indépendance xañ colonisation sax xañuñ ko parce que colonisation bi ñëwee comme ay ay gat lañ fi ay tumurank lañ dañ ñoo not si am na fu ñemuloon ak ak ñun am na yoo xam ne bu ñu leen ne lii duñ ko bàyyi dañuy bàyyi ñu def ko bokk na ci loolu taxaw ñu créé ay tribunaux yoo xam ne pour siwil la suñu sey yëg yooyu nommé ay ay xuda ay cadets di leen fay salaire bon léegi ñun donc ñooñu lañu amoon am cadre yooyu ñu jàng alxuraan nga xam ne njàng bi njàng mi mu mu mu moo am ñaar jàng arab ak jàng français mais yar bi moom benn la woon yaru diine rek la woon ñun ñëpp ci diine la ñuy doon yar wax naa ko ba tey misaal mi ma ci am mooy lépp lu ab élève lépp lu taalibe di def doon def ba taalibe di am ba yar parce que yar bi léegi ñàkkewul ci école bi donc dafa ñàkk ci école bi ñàkk ci daara ji c'est triste waaye bi yar di am ci ci daara ji ak école bi li taalibe bi doon def seen sëriñam daw bu ko élève defee bu seenee maître am daw parce que li sëriñ daara bi di aayee taalibe bi la maître bi doon aayee élève bi parce que ñoo bokk yar bi moo tax man génération buloon bi ma dëkk nga les années 60 euh, la la la jaxaaw am école française ñi ma ñi ma bokkaloon ñi ma maasaloon ñoom ñu yóbbu leen foofu ñu jàng ñooñu génération boobu maa ñoom ñoo nuroo lépp ñoo bokk jikko tuba jàng la ñu wutee damaa jàng arab ñoom jàng parce que ñun ñëpp ci diine la ñu yam malheureusement bi ñu amee indépendance di jaay ni ñoo gën a tubaabee tubaab yi ñu ne léegi nañ njàng meeg yar bi yëpp nekk tubaab ñu commencé di aaye ku dóor xale yi rapport bi doxoon diggante maître bi ak élève bi nga xam ne diggante baay ak doom la d'abord man yàlla xam ne ko bi may jàngale li tax man élèves yi ñu may ñu may jàngal ñu bëri taq ma bi ma ku ma ci jàngal ni ma ni ma sama bëtu doom laa doon dama ba damay aventurer di dugg ci sa domaine yoo xam ne su su soo ma boole woon ñu ñu ñu ñu aaye ma ko que du ma jàpp ne da élève dong dama jàpp sama doom parce que dama xam ne même même heure bi bootu sama doom a ngi ci beneen classe te suñ ko bàyyee mu def li ngay def nii du duma ma ci kontaan du ma bàyyi nga def ko moo tax man lu ne def naa ko élève fi lu ne def fi élève ci euh, Fallou Mbacké élèves yi nangul ma ko ne su leen neexoon ñu bañ col gàtt kenn du ko man kenn mësul dugg sama mboolem ñuy sol lu dañuy dañuy wut sër indaale ko bu ma bu ma bu ñu te man jàngale moon diine science naturelle laa doon jàngale <laughs> mais xam nañ ne du ma du ma du ma du ma toog di xool ay taat di jàngale du ma def lool ngeen jégal ma ci kàddu gi waaye du ma ko def dama dama naan sol waddul nga génn kalas su ko defee ñëpp a doon woon loolu loolu yar bi ma am moom moo moo moo ak responsabilité léegi ñu ne la kii sa yoon nekku ci moom yow jotewu leen dara yow salaire lañ la yoreel jàngal dong ni mu sa comportement sa yoon nekku ci bis boo ko nee sa bët bi souvent ci dañ dañ leen dañ lay dax nga am problème ak élève bàyyam porté la plainte ñu sanctionné la ñu bàyyi nga bàyyi xale yi ñi leen jàng parce que école xale yi kër gi ak école bi mbedd mi ñoo séq ndaw xale bi liy nekk ci moom ñett ñi ñoo ko ciy def lii tax ñu mën koo def nag mooy ñu ñu coordonner seeni effort suñu suñu suñu contradictoire mu amee seen diggante xale bi du xam du nekk lu kenn xam fii ne Sénégalais yi duñu du ñu france parce que yare wuñ leen ni ñuy yare français yi wuñ leen ni ñuy yare sénégalais yi français yi yaruñ leen sénégalais yaruñ leen ñu nekk ay cikiñ cagañ kenn xamul Sénégal yi lañ kenn xamul lan ay con yoo xam ne yi seen bopp yi dara nekku waaw man dama leen di yërëm yàlla xam na ko xamuñ dara c'est pas parce que ñu ngi yor ay téléphone di këcc këcc di xool dara xamuñ ko parce que ki xam dara mooy ki mën a régler ay problème ki nga xam ne bu amee problème rek ñoom problème bi gën a tuuti leen di jaaxal parce que yaruñ leen dañ leen a yor loolu nag ñun ñooy ci responsable xam naa danañ ko layoo suñu kanam borom ëllëg parce que daw res la puisque ah daw res am na ci kon euh, il faut ñu ku bëgg a jàngale Euh, il faut nga xam jumtukaay yi jàngale jàkka yi war nañu joué rôle yu ëpp li ñu joué léegi war nañ ci mën a jàng alxuraan jàkk ñu ne war na am daara su ko defee ku jàng ñibbi euh, wax dëgg yàlla internat yi solution la xëy na solution la ndax tax na ñiy mokkal ñiy mokkal yokk waaye est-ce que problème bi réglé na est-ce que réglé na problème yi bëgguma ko wax parce que bëgguma ko wax ndax damay ñun damay découragé ñi ci nekk ndax ñi ngi ci def effort yu mais am na problème ah am na problème ndax xale yi kenn yoru leen parce que amuñu temps yar leen xale bi day toog rek jàng lekk nelaw parce que yar jëfa koy dangay ngay jëf ñu corriger la ñoom duñ jëf koo ci xas dugal ci daara ji foofa ba lam xamoon ba muy dugg fa la fa la xam-xamam yëpp ci wàllu jëflante léegi lenn dong nga doo lenn dong ma doolee ko ci moom mooy mokkal ay saar yu mokkalu loolu te nu fa gën a yàggee nag di gën a naqari jubanti te li ci gën a triste mooy bu mokkalee alxuraan day def ne li ko waroon yëpp def na ko léegi kenn waratu ko wax dara kenn waratu koo wax dara kenn waratu ko corriger parce que léegi mooy chef ndax moo mokkal alxuraan c'est compliqué ah yàlla xam ne gis naa ñoo xam ne dañoo rëccu ci seen li seen doom yi demoon ci daara ji te mokka nañ pourtant mais dañuy indiwaale jikko yu xam ni génn rëy goo xam ni ba yow sa doom yi desoon ci kër gi nga di foraatu ay saar ñoo ñoo lay gënal xale boobu moo tax wax naa ko ustaas ne leen il faut ñu wut solution il faut ñu régler problème dëgg la ku mel imam Khadim Ndiaye ak euh, am na benn xarit si Ahmed Mbacké boobu moom laa ko njëkk wax ci daaraam mu mu xaw ko métti tuuti mais mu mu expliqué mu ne ma li nga wax dëgg la mais kan mooy responsable mu ne xale bi moment bi muy ñëw mokkal la mën def parce que yar jëflante yi léegi su mokkalee ñu yóbbu ko donc du dund du dund fi social parce que li desoon mooy mu mu mu libéré wu tuuti wàññi heure yu njàng yi commencé di liggéey. di dem di dikk di def ay erreur ñu koy corriger misaal bi ci docteur Imam Khadim Ndiaye jox mu ne dafa am benn waajuram bu fa indi doomam mu def ab diir mu ñëw fa di ko seet si comme visite yi ñuy def par mois mu ñëw fekk bureau bi dafa am lal bu mu fa teg parce que su sonnee fa lay napp doole bi mu ñëwee waay waajur toog ci lal bi mu toog ci chaise bi ak bureau bi léegi woolu doom ji doom ji ñëw nuyoo daal di toog ak yaay baay bi ci kaw lal bi papa ji boobu xaw a dof parce que doomam jig ci kër gi am jabar ñemewul loolu mu ne mu ne oustaz lii lan la mu ne ko lan mu ne ah xale bi xale bi toog man si kaw lal bi kii sama taaw man xaw am na doom ju toll nag moom ñemewul la toog a man ci la mu ne ko waaw mais parce que mus na toog ak mag ci la ñu ne ko kenn du toog ak mag ci la parce que loolu kenn du ko jàng kenn du ko jàng ci téere da toog ci lal ñu ne la bul toogati ci kaw lal bi nga bàyyi musta na toog ak mag ci la fu muy xamee ne dañ ko yaay donc c'est très compliqué affaire bi affaire bi yar bon wax dëgg yàlla euh, jar am na daal am na <laughs> jar na wut solution ya parce que rek problème bi réglé wul parce que tam nag yar bi yar bi moo ëpp solo njàng bi yar bi parce que yar bi moo koy def nit moo tax ñu bëri bi ñu bi ñu jógee ci daara ji seen way jur yi dajaat nañ ci ñoom loo xam ne daanaka dañu ko seen yenn doom yi pour corriger man sama doom ji ci mokkale woon li ma ci daj maa ngi yaayam pour mu nekkaat nit ñu ni xaw na nekk tuuti nit <laughs> waaye bi muy door ñëw pour misaal damay joxe misaal dama koy wax toujours nit ñi ree dañoo ànd ñu sama oto maay dawal mu dugg toog ñu dem ci ci Auchan bi ma dugg jënd mayor yor bagage bi maay jënd di jënd ñu ànd ba ñu ba ñu ñëw ci oto bi ñu dugg ba parking ma gaare léegi dañu war a jógee ci parking bi dem sama kër ma yor saag bi moom mu yorul dara ma ma ne eh, am mu daal di koy jël ñu dox tuuti mu ne papa yaa bëgg du yomb <laughs> léegi daal man maa yenu maa yenu yow nga doxal doxal alors loolu ma wax comme ça foofu la toll woon waaw parce que pour moom moo mokkal alxuraan donc man waruñu ànd mu ma yoral laay donc loolu lu jar a la donc affaire daara jàngale bi il faut ñu xoolaat ko soit euh, man daal suma sañoon ñu encouragé yi euh, jàng ñibbi parce que jàng ñibbi bi jàngalekat bi dana féetoo njàng yow nga féete yar bi euh, défaut yi mu am nga tel ko xam corriger ko parce que am na ci yoo xam ne bu xasee bu xasee passé âge bu dootoo ci man dara bo loolu rek laa bëggoon a yokk ci bindu tey bi defe naa loolu doy na ci bindu tey bi kon ñi dañ doon àggale ñaareelu eh, jihaat bi mooy jihaat ci jàngale gannaaw bi ñu waxee jihaat ci làmmiñ incha allah bu ñu fi dellu seetee door a jël jihaat yi loxo ak ci bakkan kon xeetu jihaat yi yu bari la waaye yépp am solo eh, te yépp mooy tax jullit eh, da nga ciy def boo ci tolloo nga def ko Euh, mooy tàngamat julli ji euh, incha allah bu ñu paree jihaat yi dañ gis ne kenn ku ne am na ci jihaat boo war a mën man nga def ko euh, bu boobaa nga def ko loolu mooy ay lay bindu tey bi incha allah salaamaaleykum